seet naa leen ba am seen ngërëm muy Cheikh Souhaïbou Mbacké Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Serigne Abdou Khadir Mbacké Serigne Saliou Mbacké ak Serigne Mahmoudane Diopé ak Serigne Moudou Seye Mbacké loolu asgoor ko man ab jullit ko man taalibe Sëñ Tuubaa ko man ku xam njëriñu Sëñ Tuubaa xasaayid ya ko man waa wax ni xawma keneen mënuma seere it keneen waaye sama bopp xam naa ko leer la ma ni doomi sëñ yi ma jamono teel liggéeyal naa ni du am seen gërëm ba mu leer ma naññ ba mu moomal ko sama bopp loolu nag man la man la concerné <laughs> waxuma leen koy teg ci man la engagé man la ñore teg ci ndax man sëñ Tuubaa jaral na sama bopp ak sama bakkan ak sama alal maa ko ci def sëñ Tuubaa fay ma <laughs> sëñ Tuubaa maa ko liggéeyal mu fay ma. maa maa jël sa sa bopp ak sa waxtu asamaan yëpp ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa delloo mu nit ñi delloo mu alali nit barka alxuraan billaahi wallaahi wa taalaahi maa liggéeyal sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa fay loolu kenn mosu ko waaye sëñ ku ko mos fay na la sëñ Tuubaa du sëf nday sëf doom ja amul sikki sàkk barke Seexul Xadim kon nan rafet njort bu baax ci and bi ñu and ak señ Tuubaa wër leen sant nak ci jëf joju ngeen jëf leen tek man dama ko fàtte moko na ndax am na dëkk yu bari yoo xamante ne nii maa leen di jàngal de waaye wax dëgg yàlla li mu lekk sëñ bi nag dërëm nag su ma demoon ci jànga yi sax dama yónni ko ne jox ko paas jox ko dañ fa jëkkoon yónni na ko dama yëpp ndax xaw ma kañ laa jëyee te xajuma ak moom sama bàmmeel bi ma jullee ba sërmal fii rek dama mel ni ku ñuy denc ma tiit wax suñu borom ne ko nang ñu jéggal bis bu ñuy denc kese waaye suñu borom da nga ci bàyyi xel moo tax waaye jëf ni ngeen ko jëfee dafa rëy ka rafet baas bi kenn yëgu ko de baas bi kenn yëgu ko dañoo génn topp ma ba ca ca ca ba dañoo génn topp ma ba ca oto ba ne ma addi jàng yaa ngi nii addi sëñ Tuubaa boo demee taal nga def loola neex leen duma ko yóbbu ci àdduna ñu ne ko yóbbu fab ko ñëw ci loolu nag ngeen ko waaye rëy na ci man lool. Touba Moussa Leyen bokk nañ sama histoire bokk ci sama taarix dama ko fàtte ba bis pénc maa ngi ciy ñaan ca daraja sëñ Touba lu ma am ci xasaay sëñ Touba yi rek yàlla na ko bokk ak yéen te rafet naa ci njort bu baax a baax ndax sëñ Massamba Mbacke mii di suñu bunt ci sëñ Touba sama mi jur sama ndey ak ñi jur samay maam yëpp sëñ Touba na nga leen booleeg sëñ Massamba Mbacke te téyeen sa maam ji di wax maa ngi ko doon waxal de sàmm Masamba sëñ Tuubaa ko booleeg sëñ Masamba tëj sa yéen taawam jébul ci sëñ Masamba Mbàkke ñu wax Alaaji May Fari Samb sëñ Tuubaa bind fa asmaa wal usnaa ak yeneen nu mu tuddati euh, xasida gi nu mu tuddati jox ko sama maam ñu ko nu mu ko Bamba lañ ko sant mooy yoon wi ñuy jaar dugg ci sëñ Touba ak sëñ Mahmoudane Jofe ak sëriñ Saliou mu sëñ Moustapha Mbacke ak sëñ Moustapha Mbacke mu baax mi fi nekk amiin yaa rabbal alamin barke alxuraan mosuma fekk fu may liggéeyee almadi sëñ Moustapha Massamba mii mm. fa ma daan liggéey ca almadi dafa jaay bant yi law bay yeex ma fekk ma ci benn place boo xamante ni góor gouverneur bu ñuy wax xaw ma nan sàmb moo ma ko mayoon 4000 laa ko jox mu daggal ma place ba te Moustapha ñëw taxaw ca place ba fekk ma ñëw fi nga yëngoo man ko xaw a mbàkk man ma dem ay millions dana leen fekk de place boobu fay nañ ma ci 3 millions 4 millions ba taay ma bañ dama ko fi mu ne nii ko xam ne waxi doomi Sëñ Tuubaa du joxo te doon kon bu di ay taalibe sëñ Touba suñu buntu di sëñ Massamba Mbacke loolu moom dafa naa ci ñor moo tax lu maa ngi ñaan ci dara lu ma am ci sëñ Touba xasaay di rek yàlla nañ